daal moom daal dëkk bi daal ku yeboo rek euh, xam ne daal euh, jàmm ci la yëpp xaj gis nga nag jàmm jooju waaw keroog am na loo ci waxtaan loo xam bi waaw moom maari daytaan te li ma ci jaaxal yow loo waxtaan semaine bii boo ñëwaatee day gën a garaaw mais jàmm moo yaatu mun nga ci waxtaan sooba ngoon weeru lëmb tëj te lu dañ waaye nag dinaa la wax leen de waaw gis nga sa waay jee waaw sa waay gis ko noonu waaw man rek la bañ nga ne maa la wax déedéet kay xanaa dama ne loolu maa ko waat ci kaamil bi boo ma teree mu ren. déedéet foofu la mbañal yem déedéet loolu ëpp na. waaw lu waral loolu loolu ñu jotee. da nga naan ma kay xëy na ah. da nga na neexul ndax lii moo tax war a lee waaye jékki-jékki la ma bañ te da ngeen lenn daal lu dul. keroog bi fi sa gan yooyu di ñëw. gan ya. ah naar ci projet ba. muy wax ci projet boobu. voilà waaw waaw waaw moom daal bi naka la naar yi yéeg si ñuy wax ma wax nga wax bi muy wax nag ma dog ko xam naa ni dog googu la ma mere. boobu ba léegi mayu ma jàpp ndax ca la jógee di ma xeex ba tey illaahi illallah yow xanaa xamoon am na ñoo xam ne bu ñu jëlee kàddu fii daanuñu leen boo leen dogee seen àdduna tukki am na ñoo xam ne loolu mënuñu koo supporter dañ koo juddoo waale dafa nekk ci ñoom dañuy dañ koy bañ ku leen dagg ku leen dog moo tax doo dégg ku ne sëñ bi baal ma ci dog bi ma la dog waaye yow waa keroog bu fa doomam nekkoon nag yëkkati ab kurfañ ndulli la ko dóoral ko sa kanam doo ñàkk ñaar <laughs> ñàkk xarit ñàkk ba war dama ni moo moom moomu sax xalaatuma door waxuma laa doom ah na koy seeyee xam moom daa bon rek ah man de wax dëgg yàlla seen diggante loolu yëm na ma ci ah sa waay nag man nag loolu du ma ko seetaan ndax yow sa xarit na sama xarit nga moom sama xarit la mun naa nekk ak yow nekk ak moom bëgg na nekk ci jàmm te barki démb ñu ngi koy waxtaane li gën daal mooy nga bàyyi ma ma may tuuti comme que waxuma ma dégg man dinaa ko jéem a coy matu mu wax ma dégg su ma boolee ñaari waxi xool bu ci yenu maanaa lenn dinaa la ko xamal bu ma sañoon boo waxee ak moom ba pare sax gàllax ndiku soog a wax ak ma. nga ne waaw ah déedéet déedéet. ku ma bañ ma bañ la déedéet déedéet ab jullit du bañ moromu jullitam. moo ma bañ ma bañ. man sax damay ñëw dem léegi parce que moom xam naa ne. li ma wax a tax ngay def. déedéet sama tànk tànku jàmm lay dox kat wax nga ma wax nga ma ma dégg. waaw ci jàmm lay dox. Ah, bisimilah demal demal. sëñ euh, sëñ Massa. waaw na nga def nag. waaye maa ngi sant rek sant wéeruwaay yi. yow ka danga maa bàyyi dama laa gëj a gis de. waay waay maa ci jàmm rek. koor gee la téye waay koor gee ma téye. waaw waaw fu ne nga bugg fa weer yi. fu ne daal la weer yi waxtaani wallaay wallaay ba léegi maa ngi waaj bés bu ne mën la ma fiy jaar dëgg la xam nga buñu tasee jàkk ja moom ku ne dem wax dëgg yàlla damay jàpp ne rek gisa nañu waaye toujours damay bëgg dox dox dox xat yi xat yi xat xat yi koor yi weer yee ni mel na ngeen def waaye ñu ngi sant rek alhamdulilah naka xat-xatu àdduna yi waaye gis nga ko xat rek waaw gis nga ñu nag suñu jafe-jafe liggéey bi waaw waaw feeraay moom arrêté nañ ko léegi waaw arrêté nañ ko nee nañ chinois yi war a jaay feeraay yi léegi ah maa lax loolu bâtiment bi ne fii de la ci laa yaakaar maa nga baa gone ñuy daj xam nga ni lii neexul ah doy na war ne ci mbir daan ca ñot ñoti ba mujj yàgg ñu ne la doo dootoo ko def métti na adduna mel noonu rek ah. yàlla mën a ëllëg seen xel ah, man de yëf yi métti na de la métti na lool sax adduna adduna yëngu rek adduna ah. yëngu laay adduna yëngu adduna yëngu wax dëgg yàlla mhm. euh, jaar bu gàtt laa fi tax moo tax ma jaar waaye kii yaa ko moom sëñ mbay daal sëñ mbay menn moo ma yónni Aline Aline Mbaye menn moo ma ko jox danaa la ko jox lu mu la jàppal ci lu baax rek wax na la ko bu fekkee da ko jàppal dara teel suuf teg ko ci suuf ndax kii nga xam ne mooy mbay seen mbay nee nag kenn gënu laa julliti kenn gënu laa baax kenn gënu laa tabe da ngay di jéggale nee na nit gënu la man wax na ma ci yow loo xam ne sax umpale naa koon sama diggante yow nee na ma di dimbali nit te loo jàpp bàyyi ko doo nit ma ne ko ah mu ne ma waaw lii boo demee na ma ko joxal mu jàpp muy muy ah waaw sëñ sëñ waaw sëñ Bassa waaw ah waaw. am na sëñ Aliou li ma koy yàq bit bi yàlla mu jox ma ñaari jun. kon tegal ci suuf loolu tegal ci suuf te xam na ne wees na. ma ne wuy ma bàyyi lépp seen. dina amul solo adduna amul lu baax lu ne waxal na la ko fële. loolu jàppoon teg ko ci suuf tàllal loxo yi ma ñaanal dem dama yàqante. wa zimaanu wa zaamaanu wa zimu zaamu zaamaanu jërëjëf jërëjëf alhamdulilah alhamdulilah ay waa ñaari junni fi duggee baax na ay waa jooy nekkee dana dikk ci mbégte waaye alhamdulilah yow de am naa gan. waay waay waay waay am nga gan. am nga gan dafa mel da ngay da ngay génn. waaw waaw sama rajo bii de laa bëggoon yóbbu ci Mbaye Cham mu defaral ma. Ah, waaw yow sa rajo bi de dafa yàgg de. waaw kii nag samay nopp dégg naa sama may gu njëkk maam la woon. ah ah, ah kii moom dara jafe de. waaw waaw xam kii bi mooy kale. waaw waaw waaw waaw léegi moom yi dañoo xew nag. ah. day day xam nga héritage des koy garder. waaye sëñ sëñ Mbaye. dama amul taxawaay. amul toogaay. Hmm. kii sëñ Mbassa moo la jox nee na lépp loo ne nit ku baax koy def ci réew mi kenn la ci nee na mun nga nit. doo jàpp mer da ngay jëllale kenn du la jiitu ci jàkka ja foo fekk ñuy waxal nit ku baax nga taxaw seede ko boo ci xamul dara yaa ngi maanu nee na li gën a neex ci yow nag mooy sa maanute nee na sa maanute ak sa sa sa gore ak sa julute day naa bu bilaal gàcce gu bëri baaxut ci mbag masaa ma jox lii man dama jommi tey masaa ah, ma jox lii ah. waaw lan la santal gëmal yàlla. gëmal yàlla gëmal yàlla santal yàlla. naa ko gëm santal yàlla. xool bu fekkee xam nga la ko jàppaloon yëpp yëpp ndekete muñ rek. loo gis si àdduna muñ rek. loo gis sa dafay ay waay waay waay. jaru ko jaru ko. jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko. sëñ ma def ma ma métti waay soo ma lee ba def man de amatuma waay ba Cheikh Ba. baal ma baal ma dina dina dina baal ma dina dina dina baal ma dina mécanicien ki la jox scooter wari ngeen ki pompe pono bi wari na ki la jaay essence bi wari na ki la ko wanteer sa assurance sa vignette ki la ko defal yow mi sa bopp li nga ak ki ko xelal yéen ñëpp ànd ngeen wari ñaar na na xoj di ma xool xuloo ngeen woon waaye il faut ngeen xuloowaat sinon ñaar ñëpp wari ngeen. baañu baañu baañu gën a gën a gën a jërëjëf kon mbokk yi gannaaw bu ñu seetaanee Abo Bilal ci ñaari xaritam yooyu nga xam ne kenn du tudd sa morom parce que seytaane moo jaar ci diggante bi donte li muy def sax du dëgg mais islam d'accord na ci wax lu dul dëgg mu ngi d'accord maanaam islaam mu ngi ci d'accord ci jubale ñaar ñoo xam ne ñii dañoo féewaloo woon kenn ko ne nga ñëw wax ci euh, moromam lu dul dëgg rien pour fexe ba jubal leen ñoom ñëpp loolu la ñuy tuddee islaahu daatil bayni moom la yàlla wax ni wala tufsidu fil ardi baada islahiha bu leen di dox ci kaw suuf di ko yàq gannaaw bu ko yàlla defaree dox ci kaw suuf di ko yàq mooy diggante boo xam ne bii jàmm rek moo fa amoon seytaane dugg fa di leen féewali lii bu fekkoon ne àdduna bi yëpp ñu ngi koy def ni kon kenn du noono wala noonoo du bari wala ñaar ñu noonoo itam wax dëgg yàlla dina leen jubali yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne eh, maanaam du dagan ci jullit muy gàddaay mbokk jullitam lu ëpp ñetti fan xuloo tongoo ñetti fan soo passé ñetti fan kenn ku nekk war nay waaxu ñëw ne sa morom asalaamaaleykum baal ma ak su fekkee amul itam war nay am troisième personne boo xam ne mooy dugg pour ñëw di jubale di dox tànk yéwén loolu daal wax dëgg yàlla moom lañ ci waroon a mun a jàng naafile bi nga xam ne moom la ñuy joxe ci ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent juróom benn rakaa la rakaa bu nekk nga jàng fatiha nga jàng juróom benni qul huwa qul a'uuzu bi rabbil jàngat juróom benn wala a'uusu bi rabbi naas yàlla nañu yàlla nangul nangul leen asalaamaaleykum